di yeesal suñu ndokkeel ci yéen di wax ne rek ñëwaat nañ ci suñu jotaay yi ñu baaxoo amal fii ci biir jumaa ji duppe ko yóbbalu koor jotaay bi jàll waxtaanoon nañ ci faratay koor comme ni ma leen ko waxee woon am ñu ko tudde ay ay ponk am nañu naan faraidu siyaam am na ñuy wax arkaanu siyaam waaye waxoon naa leen xëy na wute googu am na ay sabab tuddoon nañ ci ñaar yoo xam ne sëñ Tuubaa tudd na ko ci ñaari téeréem yooyu nga xam ne ci lañu doore suñu njàng mi tasawudu sigaar ak tasawudu tasawudu shubbaan ñaar yi mooy bi ci njëkk mooy yéene ta wax naa leen ni muy demee ak ni muy tëdde ñaareel bi mooy bàyyi lépp loo xam ne day yàq koor ci yàq koor incha allah danañ ci dellusiwaat ci lu gën a yaatu tey ñu bëgg a waxtaan ci sunnay koor sunna yi ni ko Sëñ Tuubaa waxe woon masnuunuhu salaatan inda labib sunna yi ñett la rek bi ci njëkk mooy gaaw a dog gannaaw bu jant bi sowee taajilun al futuura min baadil gurub gaaw a dog dog nag buñ ko waxee rek mooy nga euh, wane ne koor gi jeex na ndigal li fii la tàmbali woon fii la yem léegi dog naa sama koor am na yu ñu cay soppu ci dogee tàndarma boo ko amoon nga guux ndox wala yu mel noonu loolu danañ ci danañ ci gën a yaatal kon bi ci njëkk mooy gaaw a dog gannaaw bu jant bi sowee ñaareel bi mooy yéex a xadd ci guddi gi yéex xadd boobu nag euh, ci suñu masab imam Malik euh, jéem nañ ko wutal ab daytal am ñu ne buñ demee ba euh, ceeru waxtu des ci am ñu ne kaar bi buñ demee am na ne buñ demee ba fukki minit ala kulli xaal bu dee suñu gox bi Touba ak li ko wër fukki minute sax mën na ko bañ a mat ay juróom minit walla lu ko lu ko tegal tuuti fi ñu naan jàpp jot na ak fi ñu noon de du sori du sori loolu juróom jëm juróom ñett gën jaa fukk am na ay réew yoo xam ne ci fukki minute lañ ko lañ ko lañ ko yemale euh, muy loo xam ne ijtihaad la benn gis-gis la boo xam ne dañ ko sukkandikoo ci Euh, xadis boo xam ne dafa ñëwoon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xadis bi mooy Buxaari yi moo ko nettali ñu jëlee ko ci Zayd ibn Saabit radiyallahu anhu mu ne xaddandoo woon nañu ak yonente bi sallallahu alayhi wa mu jug daa di julli ji ñu ne ko diggante biñ noddee ak bi ngeen xadde nu mu toll mu ne mën nañ cee jànge mën nañ cee jàng juróom fukki aaya juróom fukki aaya yooyu nag la borom xam-xam nattale ba am ñu ci àgg ne du sori euh, euh, fukki minit am na ñu ko gën a sorle loolu fukki minute ak juróom ala kulli xaal waaye suñu gox bi fukki minute jëm suuf jëm juróom-ñetti minute lañ ko tollale ñetteelu sunna bi mooy bàyyi jëpp wax joo xam ne amul njariñ euh, salisuha kafu lisaani qawla noonu la suñ tubaa waxee wax ju amul njariñ dañu koy tere ci waxtu wu ne euh, ci barab bu ne waaye nag ci biir weeru ko daf cee mooy weeru alxuraan mooy weeru dundalaat ruu mooy weeru ko suñu borom dund yàlla moo tax dañuy bëgg nit ki ci biir ramadaan ay waxtoom yëpp mu feesal ko ci wàllu googu kon loolu mooy sunna yi gannaaw bu ñu waxee ci farta yi loolu mooy sunna yi mu ñett yooyu moom koor nag am na yeneen yu ci aju lu mel ne li ñu tudde surutu wujub lii tax mu war nit ki ak surutu sixa mooy yi nga xam ne bu ko waree mooy tax bu ko defee mu wér mooy tax bu ko defee mu wér am na it ay man duubaat yoo xam ne dañ koo soppu ci koor yoo xam ne xaw naa li mu tuuti kon sart yi tax mu war ak sart yi tax mu wér balay loolu yi ñu sopp ci koor incha allah moom la ñuy waxtaane suñu jotaay bii di ñëw danañu nag taxawal waxtaan wi bu boobaa ñëw nag tuuti ci diggante sëñ Tuubaa ak koor ci nu ko daan teeroo nu ci soññee yenn atte yi nga xam ne leeral na ko ci nu mu ci daan nu ko daan dunde waaye rawatina ni ci daan tërbiya murid yi lu am solo loo xam ne euh, man na di delloo si di ko jàngat yoo xam ne it ñi bind ci histoire am bind nañ ci ku mel ne Cheikh Mamadou Bachir ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon nañ leen jox di daje ba suñu jotaay bii di ñëw incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.